puisque moom puisque moom ci parti boobu la bokk. au sein de la coalition Benno sax ci biir APR am na ci ñoo xam koo xam ne nii campagne woon gisuma ko man wala boobu bi ñu koy def boobu maa ngi si leneen maa ngi woon sama campagne. moom concentré sama loolu moo ko gis. dégguma ko fenn gisuma ko fenn dew ma sama commune laa yëm fa la doon campagne ko xam. Ah, Abdou Aziz xaw ma le mal est fait xaw ma les les le vin le vin est tiré pour boire mais non avenir u dafa jar a wax. moom laa la wax léegi moom bennoo de. moom laa la wax léegi nii moom u APR moom laa la wax léegi nii ah dégg may commencé. non avenir u pour yéen c'est le président Macky Sall. si si. simplement. waaw mais bu fekkee da continuer ci logique boobu demaat ba ba deux mille vingt neuf incha allah yal nga nekk candidat mu ne baax. waaw boobaa bu boobaa. non boobaa kan ngeen da ngeen di jur da ngeen di xuloowaat. xanaa déggoo li ma la wax man président Macky bu bàyyee politique ma bàyyi. ah waaw. li ma la wax nii am na man ak sama moroom ak sama moroom mais ku nekk sa logique nga am sa sa sa sa gis-gis nga am ci politique. président Macky moo ma xamal politique moo ma dugal ci politique moo ma jàngal politique. ok donc mooy sama président. amoon nañ candidat candidat benn bokk yaakaar mu tudd Amadou Ba. président moo ñu ko noonu ñu jàppale ko jàppale nañ ko yàlla dogal ne gañewul coalition bi gañewuñu donc loolu phénomène bu amoon la jàll na léegi nag comme ni doyen wax Amadou Ba moo war a wax ak président Macky Sall parce que moo ko tànnoon. ne ko dama la tànn. ñoom ñoo war a waxtaan seen biir man li may ñaan mooy. li may li may ñaan mooy Amadou Ba ba ñu génn. ci parti parce que pour man man man. di président Macky dafa wóolu Amadou Ba. Mm. waaw man loolu laa jàpp ba léegi nii ba léegi may wax ak yow nii. man loolu laa jàpp pour man koo amul ci moom confiance doo ko def candidat il n'était pas obligé wala fa jëm fa laa jëm muy gis nga muy Abdoulaye Daouda Diallo. Mm-hmm. muy Amadou Ba muy keneen ak keneen ak keneen man dama jàpp ne ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi déglu président de la République. lu wax parce que Abdoulaye Daouda Diallo dañu la wax ne c'était lui en fait l'homme de confiance moom dañu la wax ne président Macky Sall moom la gën a wóolu. non loolu loolu loolu nit ñee koy wax président daal boo bëggee dégg dégg waaye bokk na ci ñi mu wóolu. non dama ne boo bëggee dégg dëgg. ba mu ba ba tey bëggee xoolal moo ci nekk gis nga nit la koo xam ne nii du wax wax ju bari. Mm. du du wax wax ju bari kenn du ko gis lu bari. la muy jëf nag moo ëpp. digganteem ak responsable ñu nekk ci biir APR moom moo ko xam ak seen diggante. man li ma sant. Ah. mais nag mais mais man dama.